jot ngeen mën a jot moo ngir mën a xam ngir jeexal mbokk yi internet yi bu leen fàtte bës cloche bi abonné jot information bi en temps réel euh, ci Tawfekh Production mbirum Madiambal Diagne ay kàddu boddi xeet boddante xeet ak yooyu noonu waaso leen rek lu ma ci wax lu bari <laughs> li ko gànna waxe woon wax ji du bari ñaar rek la su mbër mi ñëpp la moom lay wër ñun rek ñoo ko am <laughs> mais mu wax leen leen rek ci Madiambal Diagne du référence Madiambal Diagne man du sama référence xaw ma nag keneen déggoon nañ ko fii lim fi bindoon ci xaadim bu soobi déggoon nañ ko fii leneen ak leneen lu jeex lim bind ci mouridisme yeneen ak yeneen nit la koo xam ne ay intérêt ma tax a jóg parce que lan mi ngi ci wetu état bi amul lu ma mën a jàng ci Madiambal Diagne du référence Madiambal Diagne du Madiambal Diagne kan moo tax waxam ji sax ñi ci débattre man dama leen di mere parce que dañ ko gën a mayaat gëdd may ko buzz nit ñi fàtte woon nañ ko dañ ko gën feeñalaat rek dama mer ci ñi toog ci plateau yi ak ci débat di wax ci Madiambal Diagne ndax ma Madiambal Diagne dëddu référence ndax du ko gëm koo xam ne bëggoo suñu kilifa yi diine yi bëggoo unité des musulmans bëggoo ci lenn luy féewale luy tasaare xam nga ne li wax ni ci kàddu ñaata nit ñoo dee ci junni doomu aadama fële euh, euh, Rwanda ndax mbirum xeetal yi nii Sénégal ku fi bëgg yee fitna chaque jour ma wax ko si sa kaw lay këpp wante mënoo ci lenn ndax fii ah booloo gi ñu booloo fii doon benn say nekk benn unité bi nekk fii séeréer bi di takk joolaa joolaa bi takk tukulóor bi tukulóor bi takk pël bi ñuy kalante doon benn kër goo fi dugg Sénégal loolu mun feew ndax kër goo fi dugg juróomi xeet xeet yëpp bëree nga fa ku ci amul jabaru joola am nga maamu séeréer am bàjjam tukkula benn lañu ba pare bokkaat benn kàllaama wolof bi te ku nekk am nga foo bokk kii séeréer di njaago bi lépp ku fi bëgg indi kàddu yu féewle billaahi wa sa kaw lay këpp réew mi ku ko bëgg taal ci ñu xeetoo yooyu sa kaw lay këpp moom nag loolu mooy xaw ma dañ ko yónni xaw ma yónni wuñ ko nag parce que on jamais parce que ni mu ko tëbee tëb bi nii ñu gis bu baax a baax les sorties yi nga xam ne ce sont des sorties répétitives ci ñi nekk du camp du pouvoir di attaquer au lieu que ñu lay parce que jàpp nañ ne askan bi gënoon dañ ñoo wax naan Ousmane Sonko génnewu leen dañoo am problème nangam ñoom nag pour mën a camoufler loolu ñu fexe ba bañ bëgg indi tuuma ci loolu te leur président a dit j'ai compris la jeunesse xam na ne jeunesse bi gënoon dañoo sonn taay da mu dee ku politique doo tekke ku kii sonn bay bëgg a dee mais bu dee dañ ko yónni dama laaj rek de bu dee dañ ko yónni yónnente boobu baaxul pour ñu indi tontu ci askan bi lañ doon manifesté wu loolu rek laa ci wax du gudd du gàtt Madiambal Diagne il n'est pas une référence du référence moo xam ci média bi njëng moo xam ci lu mu mën di doon du référence